asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jawaahirul maani ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xàq di leen sàkku ci di tam ngeen baalu xàq bu baax a baax di jël sunu nuyoo ak sunu ziyaara di ko teg ci loxol son excellence mu jot li ñu ko mboolem ñu nekk ci majmuu bi yëpp dañuy delsiwaat ak Cheikhul Haaji Maalik Si radiyallahu taala anhu fi nga xam ne fi la ñu yemoon ak moom ci faakihatu tullaab bi tey nag li muy jàngale mooy bayaanu suruuti salaatil faatihi wala baabu suruuti salaatil faatixi lii mooy leeral condition yi nga xamee ne moom mooy tax nga mën a jëriñu salaatul faatix donte li nga ci wirdu lu tuuti la waaye wirdu bi lu mu bëri bari douze mille nga ciy def ëpp na douze mille junni nga ciy def wala lu ko ëpp te sàmmonte condition yi tax nga mën caa jariñu dama ne ah danga am yoolu ku julli ci yeneen bi de waaye yeneen yiñ ciy wax nag yu mag ya mag yi moom ngëneel yu mag ya mag yi wattuwul dina la ump ndax jaaroo ko nañu ko war a jaaree kon nekk tiijaan kese kese kese kese te sàmmonte ak condition yi du tax it nga mën caa jariñu soo ko defee nag danga nga am yoolu ku julli ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ngëneel yu mag yooyu ñu ciy wax nag wax dëgg yàlla dégg nga ci am yàggaay ci yam dégg nga bu baax kon nag képp ku bëgg a jëfandikoo ndax Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Serif radiallahu taala anhu sax même ku bokkul ci tarixa bi bu ñëwee ñaan la ndigal ñaan la ndigal ci salaatul fatihi yow muqaddam bi ci am ndigal am nga droit may ko ci ndigal moom it bu boobaa bu fekkee sàmmonte nag condition yii yu ciy wax ne moom lañu ko war a jàngee pour mu mën laa jariñ moom it da ciy jariñu donte bokkul ci tarixa bi yooyu boo bokkee ci tariixa te sàmmoonte condition yi itam donte jël nga ko ah danga am yoolu salaatu ala nabi de waaye nag wax dëgg yàlla ah, lañ Seexul Xaaj Maalik Si radiyallaahu anhu doon wax ne benn rek njot la ci sawara mooy day fekk nag nga sàmmoonteeg la ci war a aju yëpp <laughs> kon yooyu mat na bàyyi xel bu baax a baax haa kasruutaha salaat alfaatixi asratan wala asratun taatiha kal mafaatixi mu ne jàppal condition salaatul fatix yi ñu nekk fukk naa la ko indil ñu dikkee la comme caabi joo xam ne mooy tax nga mën a jariñu ci julli gi waaw kay mooy tax nga mën a jëriñu ci julli gi waaye di jëfandikoo salaatul fatix di fenn di jëfandikoo salaatul fatix di nga maam euh, di sàcc loo jëfandikoo ci salaatul fatix ña nga sàcc seen àq ya te di lëwaleen ko ñoom ñoo koy moom jeex na noonu rek la di amul leneen bépp ñaawteef booy def rek nga jëfandikoo salaatul faatih dee fi ñaawteef su su ñaawteef ya dellu ci ay xàq jàmbur ñaawteef yooye salaatul faatih ba ci ñooñu lay def pour nga jëriñu ci dana jafe góor gi nee na xaaka jàppal téyel bu baax a baax si loo jàpp mu ne suruutaha sarti salaatul faatih ay sartam surutaha ay sartam sarti lan mu ne salaatal fatih dégg nga jàppal sarti salaatal fatih am na nusxa yoo xam ne nag surutaha salaatil fatihi comme ni nga xamee ne bu boobaa salaatal fatihi nekk badal ci haa googu de waaye boo ne salaatal fatihi moom bu boobaa jàppal ay sartam nga nekk looy jàpp sax mu ne ani salaatul fatihi bi maanaam li ma nam ci haa googu moo di salaatul fatihi ay condition am na nusxa yuy def asratan am yuy def asratun boobay li arab bi day sensé bu fekkee asratan nga def day nekk mafulu ñaareel ci haaka boobule waaye bu fekkee asratun nga def nag tabarakallahu boobaa day nekk xabar ci mubtada muñ fi xasafee mooy ñoom sart yi asratun fukk lañu te tii ka dana la dikkee kal mafatixi mel ni caabi tabarakallahu pour mu mën la jëriñ ah nga nekk si yow laay déglu mu ne iznun kaza atiqaadu annaha la min kalaami rabbina alazimi fastabil ba ci njëkk Seydul Haaji Mal ne da nga ci am ndigal dem ci ko am ndigal mu jox la ci ndigal lu wér itam soo koy jàng bokk na ci li tax nga mën caa jariñu nga gëm ne fas ne lii may jàng bokk na ci waxu sunu borom bu màgg ba kon nag dinaa ko jox orma jox ko respecte dinaa ko jox orma jox ko respect bu mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk màggal ko sama kemti lay kàttan loolu dina am leneen lu ci def te loolu màggal googu mooy tax <clears throat> teewlu gu mën a am yu bari nga koy moytu yu bëri nga koy moytu ka daanaka noonu ictiqaadu mooy fas annaha naka lii may jàng la min kalaami rabbina na mi ngi bàyyi ci waxu sunu boroom al azimi bay aji màgg nga bañ a jàpp ne tabarakallahu alquran rek mooy mu waxu sunu borom déedéet hadiisul qudsi hmm? loolu waxu sunu borom la tawraata ngi fi injiila ngi fi yeneen téere fi te sunu borom moom du dan di wax kon nag fas tabin na jéema leeru lii wa hakada istixdaaru wa nabi talamuxan maana salaati xasibi am ñu def maana alkalaami nee na itam bokk na ci condition yi ngi mën a jëriñoo ci salaatul fatixi mooy jéem a teewlu melokaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga koy teewlu ci sam xel ak ci sa xol di ko maana salaa yàlla wax gi ko wax yow yàlla jullil ma nga ne waaw yàlla de xanaa ni muy julli dana yéeme façon la boo xam ne kenn kenn xamu ko na mu koy defee na mu koy defee moom doo nga ko xam nga yóbbu sa xel ca loola teewlu ko bu baax di ko géndeeku moo tax mu ne wa hakada naka noonu istixdaaru surati nabi nga jéem a teewlu melokaanu yenent bi ci jamono booy def salaatul fatihi te lam mu xan it ngay jéem a géndeeku maana salaa maana salaatu bii nga xam ne moom ngay sant sunu borom pour mu war la ka defal ci rasulullah sallallahu ci ni mu koy defee xasi bi dëgg-dëgg ah, na nga lim loolu pour mën kaa jëriñoo nag wal ictiqaadu annama alxasibu anhu min alsalaati qad yanuubu bokk na ci waaw aywa bokk na ci condition yi tax nga mën a jariñu ci salaatul fatih nga gëm ne yàlla ci boppam mooy wuutu moo lay wuutu jullit la ci yenent bi ndax ba nga ne allahumma salli nga ko wax de kon yàlla sunu borom subhanahu wa taala moom nga santaan mbir mi wan na yow da cee tële da nga cee lottu lool façon bi mu ko waxee moom dong nga ko mën a delloowaat sakku ko ci pour mu defal la ko loolu da kaa war gëm wal itiqaadu ak pas-pas mooy nga wal itiqaadu ak gëm annamal xasibu ne du ma lu dul yàlla moom aji doy la dégg du ma lu dul moom yàlla aji doy sëkk sëkk sëkk sëkk la na xat yenu bi mën na wuutu anhu ca yenent bi mina salaati ci julli gi tabaarakallaahu mu wuutu wuutu ci yenent bi jullil ci boppam tabaarakallaahu comme ni nga ko waxee صلى على قليله الرحمن ما صبحت في بحر الحيتان nee na salla yàlla julli arrahmaanu yàlla mi nga xam ne mooy borom xéewal yu mag yi di borom yërmande ju daj ji ala qalilihi ca xaritam ba maa sabbaxat feeg mi ngee sabbaal alxiitaanu jën yi fii bahri yi ca géejam salaatu wasalaam daal yàlla bu mu dañ di nekk ci Moustapha feeg jën yaa ngee sabbaal dangaa war a gëm ne itam ne wa annama rasulu sirru zaati wa aynuha wa ruux mawjudaati mooy tax nga jëriñu dangaa war a gëm ne mooy secret jëmmi yàlla ji mooy secret jëmmi yàlla ji ndax pour nga àgg ci yàlla foog nga jaar ci yonent bi kon koy mooy secret bi dangaa war a gëm ne itam mooy balluwaayu secret yàlla may yàlla yëpp yàlla mi ngi koy ballalee ci sallallahu alayhi wasallam mooy aynuha dangaa war a gëm ne itam mooy ruuxu nekk teef yëpp nit ñeeg sànqalañ yeeg fas yeeg mbaam yeeg jinne yeeg foofu nga yegg ci wàllu yàlla ba lenn lu ci ne dangay xam ne ay mbindeef yàlla feeñ ci ñoom rek nga xool yenent bi ci ñoom di xool yàlla ci ñoom tabarakallahu ba lenn lu ci ne doo ko néel te def lu métti ndax xalaat ne sekkar ruuxu yenent bi nekk ci moom rek ruuxu yenent bi yàlla def ci moom muy dox ceeb ba ngay lekk ak lépp benn <laughs> yegguwaay la moom moom benn yegguwaay la war a gëm ne wa annama rasulu duma lu dul yenent bi ci soo jëli salaatul faate sirru zaati mooy jëmmi sekkare yàlla secret yàlla yëpp daka dëkkan ci moom wa aynuha mooy balluwaayu may yàlla yeeg bëgg yàlla yeeg lépp yàlla daal tabaarakallaahu yenent bi mooy balluwaay ba wa ruux mawjudaat mooy ruuxu nekkteef yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp tayit booy jëfandikoo salaatul fatih wa rabbuna ilay min hablil warid aqrabu subhaana alfauli maa yurid dana tax itam nga xam nooy taxawee ndax boo euh, nekk ci julli gi nga jàpp ne yàlla moo la gën a jege sa buumu xol gii di ko bàyyi xel di ko bàyyi xel fa in lam takun fa innahu yaraak nga àgg ci garaat boobule dana tax yu bëree bëri loo bëgg a wax ci lu jaaduwul ah, yàlla xam na ko jëluma ma koy wax loo bëgg a def ci lu jaaduwul waaye léeg-léeg ñàkk yëg yàlla googu fàtte gi ñu koy fàtte moo ñu dugal ci fen moo ñuy dugal ci jëw moo ñuy dugal ci naan sàngara moo ñuy dugal moo ñuy dugal moo ñuy dugal ba mu jeex salaatul faati nag boo ko jëfandikoo bëgg euh, jariñ nga am ca yow lañ cey wax yëpp mu nekk ci yow mooy def caa bokkaale nga jàpp ne yàlla moo la gën a jege sa buumu xol gii wa rabbuna sunu borom aqrabu moo gën a jege ilayhi ci jaam bii julli ci yonent bi min hablil waridi subhaanal fauli tudd naa sellu buur ba nga xam ne mooy defaa kon maa yuridu lépp loo xam ne bëgg na ko rek ci jaam beeg nguur ci addunaam bi daal jeex na mu gën a gàtt wa saaminu istixdaaru ka maani wa taasiu al qasdu la dal bayaani nee na bokk na ci juróom-ñetteelu charte ba mooy teewlu sa teewlu gi ngay teewlu maanaa maanaa salaatu bi yëpp lenn la nga xam lu muy firi wala boo ko jéemulee xam boo ko xamulee itam tabaarakallaahu ah nga jéem ko teewlu ci sa xol teewlun boo xam ne ne jëmm yonent bu taxaw la rek ay jéem ko teewlu teewlu gi nag bokk na ci jéem ko dund waaw kay jéem a dund salaatul fatihi bi maanaa suñ waxee alfaat li maa ko lekk yow foo fekk lu baax rek nga bokk ci ñi ko njëkk def wal qaatimi li foo fekk dégg nga euh, safaan nga fexe bokk ci ñi koy tëj foo fekk dëgg jéem ko jàppale yooyu dana tax dund gi ngay dund salaatul faati jëriñ nga gaaw a ci yow wa saamili juróom-ñetteel ba mooy istixdaaru ko sag teewlu gi ngay teewlu almaani maanaa salaatu bi yëpp nga jéem ko teewlu teewlu gi nag dara rumb ci dara ëpp doole di ka jéem a dund wa taasiu juróom-ñeenteel ba mooy alqasdu mooy jublu gi mooy maxsad bi nga xam ne moom nga war a tijjee boo koy jàng maxsad bi nga teewlu ko teewlu bu ma sëkk sëkk sëkk jàpp ci wax yëpp yëpp teewlu waaw kon day am maqsad loolu nag boo demee ca mag ñi wala ci lenn ci téere tarixa bi daañ la joxuñ maqsad yooyu boo ci amee ndigal tabarakallah boo koy jàng foog nga jàngaale maqsad boobu pour mun ne départ la dal bayaan fa leeral gi aasiruha an tanwiya an tanwiya taadima lillahi wa rasuli wa takrima nee na fukkeel ba mooy nga yéene màggal ci yàlla mi kilifa ak yonent bi ak yonent bi yàlla mi ko santaane moo tax mun a asiruha fukkeelu charte ba an tanwiya mooy nga yéene a taazima ak màggal lillaahi ñeel borom ci julli gi ngi ci julli wa rasuli ak yonentaam bi mu santaane ñu julli ci màggal yàlla ci wax gi mu ko wax ak yonent bi mu ko sant buñ ko war a teralee wa takrima ak teral wa bi luzumi hadihi l aslaaki tazaalu anka jumlatul ahlaaki loolu la Seykul Haaji Maalik Si radiyallaahu anhu wax nag ci takkoo gi ngay takkoo mboolem sart yi ma wax mboolem lëndëm lëndëm yu nekkoon ci sa xol réy daraja iñaan soxor bëgg àdduna yooyu yëpp day mujj dégagé ci yow wa tazaalu dana dañ ba set wecc an ka wëris la jumlatul axlaaki mboolem lëndëm lëndëm yi nekkoon ci sa xol yëpp waaye nag yaa ngi koy mën a amee bi lusuumi aslaat ci takkoo saabu takkoo goo xam ne yaa ngi koy takkoo yile condition yile waaye daal tabarakallah yile yoon ci ngay mën a jotee ci affaire bi waaye bu fekkee da nga cee bëgg a te yoon wii ñu tëral na yoon wi lañ ci jëriñoo condition yi lañ ci jëriñoo sàmmante yoo teg benn da nga am yoole ku julli ci yonent bi waaye liñ ci diggee ci salaatul faatihi Cheikh Seydi Ahmad Tidiane wax ko ci ci ay xaqaayiq wattul dana la ump fii ak ci ca noonu nga xam ne noonu la war a doxe dafa mel ni de buntu boobu foofu la yem ah, léegi ci rëbe cetal salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh